السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته آه أنصار الفايدة ما نينو يكون نكتي تلم أكسنت دي سيدي عبد الرحمن بباح مما فاكتي بنتو دي نيو بريزدان رئيس دي كو مقل دي كو واتي واتي وايام بباح باح دي تك نيو بيتي لغو من نيو المواغول بيب ah mbokk yi ñu ngi mastawu coono ñëpp nag ñu ngi leen di mastawu coono ñu ngi mastawu coono xadara ibrahimiya bi yëpp noo ngi mastawu coono tamit bu baax a baax umma sénégalais bi yëpp population sénégal bi kenn desut waaye nag ñu ngi mastawu coono bu baax afrique wërngal képp bawuñ kenn waaye nag adduna bi yëpp monde entier di wax alhamdulillahi rabbil alamin ci sant yàlla bu baax bu baax bu baax di gërëm mawlaay al xalifa alxaaj cheikh ahmed tidiane ibrahima ñas ñun ñëpp nañ ko njukkal nañ ko gërëm nañ ko sant dëgg-dëgg fierté la ci ñun bi muy dund ku ko gis sopp ko ku ko gis bëgg ko dégg naa cheikh abdou barham mu ne ku bëgg gis njàpp ma bàyyi daan njàpp bu daan dem jumaa rek xoola Cheikh Tidiane Ibrahim Niass bu la joxe gannaaw ni muy bangeeree mbaggam càmmooy meeg mbaggam ndeyjoor mi ni koy yaanee macha allah ku bëgg a gis tamit jëmmi Cheikh Ibrahim ca taxawaay ba faw nga xool Cheikh Tidiane Ibrahima Niass waaye ndeysaan al anwaaru rabbaaniya al jamaliyatu wal bahaiya taarab jamaal bi ci Baye Niass ak taarab bahau bi ci Baay Ñas boo xoolee xalifa bi gis ko ci waaye nag soo buggee gis kersa ga sëñ daam Cheikh Ahmadou Ibrahima Niass bañ ko laajee li ko lu la gën a frappé ci Baay mu ne yar gi ne ci Cheikh Ibrahima mu ne Baay sëñ daam nee na dafa yaroo am kersa ba am kersa si njabootam loolu boo miinee Cheikh Tidiane Ibrahima Niass da danga koy gis ci moom kersa ak yar ak teg teggin jullal aw xaaj lu ëpp ci taam daf koy sëgg buy wax ak yow du la fixé bëtam yi hada xaayatul kamal fil adabi loolu jaar dëgg ni noonu waaye soo bëggee gis ku bëgg Cheikh Ibrahim ku bëgg Cheikh Ibrahim ba egg ca ba egg ba egg fi nga xam ne nii mooy dayo bëgg Cheikh Ibrahim da ngay xool Pape Cheikh Tidiane Ibrahima Niass wa dalili ala zalika lan lay tegtaloo ci loolu mooy doomi Cheikh Ibrahima yi nga xam ne moom ak ñoom ñoo bokk baay ak njabootuk Cheikh Ibrahima gi nga xam ne bàyyi leen njaboote woon ci ay soxnaam xalifa bi da doon lijjanti mboolem soxna soo xam ne mës na nekk soxna Cheikh Ibrahim ci àdduna fuñ ko soxna yi fuñ mën a nekk ci kaw suuf moo xam Saalum ak Dakar ñi nga xam ne jaaroon nañ ci loxoy bàyyi moo xam sax xëy na mën naa am sax tàggoo nañu ak waaye góor gi daf leen doon xormaal di leen oddu di leen dundal gàddu leen dépense ñoom ñëpp ma xam ci lu ma leer naññi li may wax nii képp koo xam ne mas nga jaar ci loxoy Cheikh Ibrahim ñu ne soxnaam ngoon rek te ngay dund rek paa bi daf la jëloon jëf la comme bopp di la xormaal di la xormaal di la xormaal di la jox ngay dund dina jox ngay oddu di fay say ndox di fay say courant lépp loolu da ko doon def waaye nag ndeysaan ba tey doomi Cheikh Ibrahima yi nga xam ne dañoo fàddu dem rey bu doomi Cheikh Ibrahima yi nga xam ne dañoo fàddu dem rey bu kum ci yëg sa soxla kum ci yëg sa soxla daf koy taxaw bi ahsani wajhin wa akmali wajhin taxawula ba dootoo sentir ne yow sa papa fi su fekkee taxawaay ba nag dafa laaj dugal loxo ci poos génnee def cay gaaw ba mel ni kal la xaatif waaw comme barq ni melxat di def noonu la ci gaawee dimbale la dugal loxom ci poosam waaye eh, sëriñ bi xaw xawla cheikh mooy muqaddam yi mag yi waroon bàyyi seeni doom seeni njaboot kum ci yëg sa soxla yi tamit noonu lay mel loolu yëpp ni yaabataane ni Cheikh Ibrahima radiallahu anhu dafi doon utu Baay Ñas waaye xormaaloon na képp kuñ ne sa wayjur kilifa diina la ci réew mi moo xam nay Mbàkke nay si demal Daaru Salaam ci Alaaji Omar Ndaw demal jaamal ci Jamima Abdou Cissé demal dimiska ca ña sant Sàll demal Canaba ca ña sant Sekk demal Njaasaan demal Tiwaawoon demal sëñ Muxsin Jóob ci Ndar demal demal Yoof ca Laayeen ya demal ba demal ba dimi gi jeex alaaji Cheikh Ahmad Tidiane dafa fonkoon ñooñu fonkoon seeni doom fonkoon seeni njaboot bëgg leen teg leen foo xam ne kenn mësuleen leen faa teg waaye nag bul fàtte tamit jàngu bi duñ jullit de waaye sëriñ bi daf leen fonkoon lool bëgg leen lool di leen dimbale seen soxla yi lool bokkak ñoom seen lépp waaye laajal Kaolack eyal Kaolack nga laaj kon ne ko kan mooy xalifa Cheikh Ahmed Tidiane waaye demal ci doomi Baye xalifa Niass yi Baye Cheikh Oumar Baye Moaz Baye njaboot ak maam Alxaaji Abdoulaye gi ak seen njaboot ñëpp la wuufoon fonk leen bëgg leen xoolal YouTube bi rek mboolem kuy yeewoo ñaseen def nga def nga témoignage wala Alxaaji Niass témoignage am arab yi témoignage am xoolal Mouhamad Niass doomi Cheikh Ibrahim alaaji Ibrahima Niass témoignage am xoolal alaaji Sotu témoignage am ñeseen yëpp a def témoignage di jooy di jooy xalifa bi moo tax ma ne ñun ñu ngi ndokkeel Cheikh Tidiane Ibrahima Niass wallaay góor gi jaraw lakk góor gi baax na waaye nag fierté biñ ci am mooy xoolal xoolal àdduna bi seeni arab yi xoolal France vingt-quatre xoolal RFI li wax xoolal monde bi xoolal Mauritanie ni ñu jógee te téyewuñ seen ma kenn mënu leen a téye xoolal Nigéria nu ñu buuree xoolal Ghana nu ñu jógee xoolal Burkina Faso ni mu jógee xoolal sa xoolal américain yi xoolal Italie xoolal Europe xoolal Asie dëj bi nekk empereur boo xam ne nii adduna yëpp dañ koy waxandoo duggal nag ci chaîne senegal Sénégal yi nay TFM nay Walf nay 2STV nay Sen TV demal ci seeni yu yemambaay yi dégg nga amul benn seen réseaux sociaux boo xam ne ni bakkoo waa jiiñoo ko tuddoo ay jëleeram xoolal Asfiyahi FM te benn seenu télé la bu nekk ci Tiwaawan ñu ngi leen di ndokkeel ñoom waa Asfiyahi FM def nañ lu rafet ci dëj bi démb maa ngi déglu benn benn marocain ñu dalal ko mu ñu koy laaj ci ci diggante Cheikh Tidiane xalaaka relation Medina Baye ak ak Fass marocain bi dafay mel ni moom Kaolack la juddoo li muy wax ci Cheikh Tidiane Ibrahima Niass kenn xamul nu mu toll kon mbokki waa faydu bi ñun lan lañ war a def nañu changé suñ discours yi nañu yaatu dënn nañu nañu boole ñëpp buñ buñ buñ dàq kenn buñ beddi kenn buñ saboote kenn buñ ñàkk yar ci wax ak jëf nañ ni du xalifa bi nañ ko niru ci dimbalante nañ ko niru ci fonkante nañ ko nidu ci demlante ak dikklante nañ ko nidu ci bépp anam ki daal dëgg-dëgg dund na nekk fierté ci mboolem doomi kawlax ak doomi faydu bi ak julli ji waaye dem na ba fi jaloore wu mat sëkk jaloore ñëpp war a bàkk papa cheikh giwel yëpp war a wëy shuaraaw yi dañoo war a wëy li bàyyi waxoon ne wa atmun ala shuaraa yi kada taha لقد تلاح الحلال هلال طه فيا بصا وواها ثم واها أحبه وأرحبه دنگ وحتما على الشعراء كذا أحباب طه لول دفن يورن تالبي يب ني جانج ني سيرير نانكو باك تي سيرير ني بل نانكو باك تي لاكو بلار ني ولف نانكو باك تي لاكو ولف ني رفتل يارم عرب نانكو باك تي عرب باسكو كي دافا ميلوتو ني باك كو تي مبولم خانامي باكير ne ko ngelaw lakk ci njàmbaaram ci tabeem ci kersaam ci xormaam ci mbëggeelam ci yaram ci tegginam ci fitam ci bëgg yàlla bëgg jumaa ji jumaa ji dana ko jooy wasifa dana ko jooy xadaratu jumaa dana ko jooy julli fajar ko jooy waaye meer yu baax yi soxna yu baax yi julli fajar di ko xaar nan ko ñas muy sar xolle di baagu seen biir di leen ñaanal ñoon danañ ko jooy waaw ñëpp koy jooy mbaax dana ko jooy kersa yi dana ko jooy kon daal ñu ñëpp ñu ngi koy jooy di ko ñaanal yàlla xalifa bi moo baax wallahi moo baax su yàlla amoon olof bu amoon beneen tagg bu muy bàkkee nit bu raw yaa baax kon ñu àbb olof loolu bàkkee ko suñu xalifa bi kii moo baax waaye nag ndeysaan Medina mel noonu borom Medina moo mel noonu isa kanat al aqdaaru min maliki al fa siyaani indi ma yusir wa ma yubki laa ilaha illa allah الله اكبر لا اله الا الله محمد رسول الله اه كنا نيب نيو تالال سونو لوخي جانغ فاتحه بن يون فكي قل هو الله احد اكبرنا جانغ فكي ايات الكرسي جانغ فكي صلاه الفاتحه مانكوي نيان مبولم طالب باي مبولم طالب باي mbollem talibé bay ñu né man nañ 400 millions 400 millions personnes bu nek bu jangé fatiha ben yon fukki khulwa ak ben fukki salatul fakih konon inchallahu darra ñu jox ko xalifa bi haddiye mu teeralee ko macha allah waa aljana teeroo ko noonu mu wàcc wàccaale salaatul fatiha yooyu ak lixlaas yooyu dégg nga ak ayatul kursi yooyu du xaj ci benn baskel dégg nga fekk fa magam ju baax ja alxaaji abdallah borom xam-xam ba alxaaji ahmadu borom kessa ga borom yar ak tey jii nga fekk fa macha allah Baye Cheikh Serigne bay Niass ñi àndoon ak Baye bay Cheikh Omar Touré bay Ousmane Ndiaye bay Sidi Aliou Cissé bay Ibra Fall bay Thierno Assane Deme waaye fekk fa nag Mouhamadul Misri ak Cheikh Ani ak Malam Tidiane oho fakfa ponkol yooyu yëpp ñu koy berde waaye fekk fa Cheikh na Tidiane ak Ali Razim al Barada ak Ali Tamasini ak Mahmoud Abou Nasri ak ki nga xam ne mooy Mouhamadul Michli ma daan jiite Cheikh Tidiane radiallahu anhu fekk fa Mouhamadul Hafiz Asanqiti fekk fa bëddi wuldu Seydeni waaw waaw fekk fa nag mi nga xam ne nii mooy Cheikhani fekk fa nag gaa yi yooyu yëpp ponkol yooyu yëpp mu fekk leen foofu ñu koy ba ñu koy teral waaye fekk fa waa Badar ak waa Uhud ak Fatu Makkata fekk fa rasulillahi ak aboubacar omar ak ousmane ali ñu koy bendel waaye fekk fa jarbaatam bu baax ba seydi wa mawlaay imam hasan Cissé fekk fa oustaz ibrahima mahmoud diop borom baatu rus ba ci alquran muy cheikh mahamad nazir borom baatu rus ba ci tagg yonent muy cheikh mahamadul haadi fekk fa coobare yàlla gal xaajo xusaynu dégg nga fekk fa nag ki nga xam ne mooy sëriñ maamun ki nga xam ne dafa tabee tabee tabee ba nekk jëmmi tabee kooku ñun dafay fekkee yàlla ñu ko yàlla fayal waaye nag ñu ngi wax cheikh mouhamadul maahi ibrahima ñas ما هي الكفر والرزائل ما هي الدلالي كي خامني موي فار ندنغ دي فار نجوبدي كي خامني موي صاحل مباخ ا آه، كي خامني موي صاحب الاستراتيجيه ما كوتودي في تكوين البشريه صاحب استراتيجيه في تكوين البشريه في تكوين الانسانيه في تكوين المرء الجاهل حتى يصبح عالما ata yusbiha murshidan kooku mooy Cheikh Mahamadul Mahi mooy forme koo xam ne forme rek kay métier defar ñu ngi koy wax ne marhaban ya cheikh Mouhamadin il Mahi ahlan wa sahlan nazalta ahlan wa alalta sahlan yal na yàlla jàppandal lépp sa ayeg yal na neex yal na neex yal na naat yal na barke yal na yaatu yal na bëri njëriñ cheikh Mahamadul Mahi wallahi école nas xam na la maa tax laa jàptulaay biñ la baxee waaye alquran nag baqara ba naa si kër goo fa romb moo xam kër gu tudd sootu baqara moo xam ko tudd ali imran moo xam ko tudd nisaa yi moo xam kër gu tudd dëkk bu tudd maida moo xam dëkk bu tudd lanaam moo xam dëkk bu tudd laxraaf yunus dégg nga ba dëkk yi ne ci ak saar yeeg ruq-ruq yi ci alquran yëpp xam nañ kan mooy Cheikh Mahamadou Mahi xam-xam xam na kan mooy Cheikh Mahamadou Mahi doylu xam na kan mooy Cheikh Mahamadou Mahi kessa xam na kan mooy Cheikh Mahamadou kon yal na naal bi yàlla téeñal la ko te enul la ko yal na oyof lool noo ngi nuyu nag di ziara mbooleem abna u cheikh yi mahamadul amin mahamadou xaaqib mahamadul makkiyu mahdiyu abdul malik Xuraysh ñëpp ñu ngi nuyu doom yi bàyyi góor yi ak jigéen yi ak muqaddam yi fu ñu mën a nekk yal na yàlla def jàmm ci réew mi def jàmm ci waa réew mi yal na yàlla def jàmm ci fayda bi def jàmm ci doomi fayda bi yal na yàlla xaar fayda bi xaar waa fayda bi yëpp ci barke yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci barkeb ñooñ Badar ñooñ Uhud ñooñ Fatu Makkata ci barkeb Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ali alazimi tamasini Mouhamed Damrawi Mahmoud Abou Nasri Ibrahima Rayahi yal na yàlla xaar fayda bi ci barkeb Cheikh Omar Fouti Seydi Aji Malick barke Alhaji Abdoulahi Niass waaye ci barkeb Mawlana Cheikh Ibrahim ci barkeb Baye Cheikh Serigne Mbaye Baye Cheikh Omar Touré Baye Ousmane Ndiaye Baye Aliou Cissé Baye Ibra Fall Baye Hassan Deme innahu waliyu zalika walqadiru alayhi aqukum muhibbukum fillah Cheikh Bayfal, Fall maa ngi leen di nuyu ñëpp Uras info. Ribari Gao, gaaw. te Uras info l'info à temps réel. Uras info. jàngat yu xóot te notre force le traitement de l'info.